ca la mu tàggatoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam warsagal ñu ci nganeelam ñu dëkk ak ñoom ci këru teraangaam mbokk yi yéen a ngi fàttaleku suñu dars bi weesu ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam ngeen fàttaleku ñu ubbi woon menn xat ci xatu istuwaarul lislaam waaye muy xat mu xam ne buñ waxut ne du xat mu répété wu du xat mu amaat danañ ne mu néew la waaye sax dañuy saña a dogu ci ne du xut xat mu xam ne amaat na ndax mu ñu geestoo waxu imaam alxaafis alzahabi bi ñu tuddoon ci suñu dar sa bi weesu ca la mu ne diggante ngëneelu Khadija ak Aïsa dama ciy taxaw amul weerante ne ku mel na imaam xaafis zahabi ak fi ko yàlla yeggale ci xam-xam bu demee ba li borom xam-xam yi wax ci diggante Khadija ak Aïsa ci wàllu ngëneel dem na ba gisut fu mu mën a notalee ngëneelu kii ca kaw kële amul werante ne googa nga ne dugg tuuti kon su fekkee ne am na waxuma ci kër yonente bi salallahu alayhi wa waaye ci xeet wii ku ñu ciy gam-gamle ak Aïcha Xadija doo nga lay doon ci fu ñii notalee wàll gii ñii notal wàll gële amma bu dee ci xam-xam moom xeet wi ba mu daj dajewuñ ci ak jigéen ju xam xam-xamu aisha radiallahu anha naka noonu bu ñu xoolee cofeelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéen a ngi fàttaleku xadis amr ibnu aas ba mu laajoon yonente bi sallallahu alayhi wa kan ci nit ñi moo la gënal mu ne ko aisha kan ga gën a bëgg ci nit ñi mu ne aisha mu ne kan nag ci góor ñi mu ne baayam kan ci góor ñi mu ne bàyyam fàttaleku ngeen cofeel googu li ñu waxoon ne moo ko lal duhut cofeel gi gën a niru ak nobel téeréet cofeelug yonentub yàlla la du am ci ludul lu ko yàlla bëggloo fam xam mbëggeelug yàlla foofa lay placé ak mbëggeelam moom yonent yàlla ndem ñi dul yonent sax seen ngëm du mën a mat lu dul ba te ñu placé seenu mbëggeel ci kaw ci ron mbëggeelug yàlla ron mbëggeelug yonent bi sallallahu alayhi fa min baabi awlaa yonent buy bëgg kon du doon mukk mbëggeelug nobel wa xaasa ti seetlu ngeen bokk na ci li ko ferndeel ba lenn ci soxnaa yonent bi sallallahu alayhi tawatee teraanga yi nga xam ne ñi koy jox yonent bi sallallahu alayhi dañu ciy dàkkaale bisub aaye Aïcha ñu jox ko ko foofa ngir xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu ci toll bañ ko tawate bokk na ci kàddu yam wax amul kenn ci yéen ku xam ne wax yu ñëwal na ma fekk maa ngi bokk ak moom menn malaan mu ñu sàngoo bu dul Aïcha fàttaleku ngeen ci lu dul benn yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Aïcha kii de Jibril la mu ngi lay nuyu ak yeneen yu bari lool yaakaar naa fàttewu leen takkub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha ne booba juróom benn at la am jabaroowu ko lu dul ci bi mu amee juróom-ñeenti at fooba lañ ko ko sog a jébbal dencut kon ab jànq bu dul Aïcha radiallahu anha foofa su yaay Aïcha radiallahu anha wane na fa taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa bu xam ne day jàngalaale képp kenn ci ñun nan la nan la ko yonent bi sallallahu alayhi takkee nu mu takkee Aïcha kenn ku nekk ci ñun nañu déglu ndax ñun noonu la ñu takkee suñ jamonum de bi Xarija faatoo ba ñu defa biir la xawlatu bint Hakim ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yonent bi ndax gisuloo ne fi mu ne jot na nga takkaat keneen bopp nga takkaat jabar yonent bi ne ko jànq walla jeeg mu ne ko boo bëggee jànq am na boo bëggee jeeg am na bu dee jànq sa doomu mbokk mi sa xarit bi nga gën a bëgg di Abubakar doomam Aïcha warees na la ko mën a takkal Euh, su fekkee jéeg nga bëgg itam sawda mu ngi fi yontu salaa salaam ne waa baax na kon mu ngi sa loxo kon tudduma fa ñoom ndax yonent bi dem na waxi wax na woowal ma si ma wax ak moom ah wala nañu kii naa dajeeg ndaw si barab sàngam ma wax moom ndax xam bëgg naam déet balaa may dem ci parent yi ndax loolu la yontu bi wax déedéet dafa ne tudd ma fa ñoom xaw la dem ci ummu romaan yaayu Aïcha mu ne ko teraangaay àdduna ak àllaaxira de ñëwal na leen teraanga ak barke ñëwal na leen mu ne ko luy loolu mu ne ko yonent bi de daa bëggaloon seen doom moom de moo tudd Aïcha ne daf ko bëggoon ñu seq beneen jéego ndax soxna si dafa ne loolu kay gëmewuñu ko déedéet soxna si dafa ne ba Abubakar ñëw gis ngeen yoon wi de mu ne ba Abubakar ñëw ba Abubakar ñëwee ñu jottali ko ba Abubakar ñëwee ñu jottali ko xabaar bi Abubakar ne ah ma yonent bi mooy sama mbokk Aysa di doomam mu ne waaw sa mbokk la yonent bi tontu ndaw li maay mbokkam kay waaye nag denc gi doomam it lu mën a nekk la Abubakar xalaatam nangu waaye soxna si mu ne euh, Mutaam dafa waxaloon doomam ci Aïsa maanaam daf fi sànni woon kàddum ne doomam la ko bëggal te dig boobu daal xaw ma nu ma koy def kon amaan na soxna si bam naan ba Abubakar ñëw xamoon na lii waaye lu mën a xew Abubakar nee na loolu moom maa koy mu sol dàllam dem toog ak mutu am ne ko waaw euh, sama doom Aïcha da nga ci amoon wax joo doon waxal sa sa doom mu ne waa xaara ba yaayam ñëw gis nga kër jullit gi de bañ waxee jigéen lan la wax mu ne xaaral ba boroom kër gi ñëw waaye gis nga kër yéeféer gi bañ fa waxee góor gi lu mu wax mu ne xaaral ba madam ñëw ah bi maram jëwee Abubakar ba am tu wax ja yaay xale bu góor bi ne man damaa ragal soo ko mayee sa doom nga dugal ko ci sa diina yàlla ngi ubbi bunt ah mu ne waaw ku góor ki yow nag loo wax mu ne ah dégg nga kat soxna si wax Abubakar ne kon baax na daal di fa déparé kon amul benn dig bu mu deseete ak ñoom ci la ñëw nag tontu Xawla mi doo nekkoon ndaw li ne waxal yonent bi sallallahu alayhi nangul nañu ko nangul nañu ko ñu nangul ko may ko booba sa toll ci ñaata at juróom benn at waaye ku ñu maye ci juróom benn at soxna rek maanaam maye nañ ko mu nekk jabar waaye matagul jabar ca soxna si xawla bint hakim delluwaat sol daalam dem ca samaa naa dem ca kii sawda bintu maan ba mu demee moom sawda bintu samaa mu wax ak moom kooka nangu moom itam ñu may ko yonent bi sallallahu alayhi wa kon ba ñu waxee ba soxna soosu doxee ba kàddu gi ak antu ñu may yonent bi sallallahu alayhi wa fii rek suñ ci yemoon suñu darsa tey mbokk yi danañ ci njëkk a jàngee lan mooy yoonu labat ci lislaam lan mooy yoonu labat ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la nekke makka ba bi mu gàddaayee bi mu gàddaayee moom ak Abubakar ñoo ànd waaye seen njabootan ci gannaaw bañ demee ba yegg ca la yonent bi sallallahu alayhi wa yónnee ndaw yu ko war a jëlsil njabootam jox waruwaay ak luñ jandee ay waruwaay yu ca dolleeku waaye bi ñëwee fekk nañu Zubayr ibnu Awaam moom itam mu ngi doon préparé njabootu Abubakar ngir rañaa gàddaayal leen ñoom it ñu fekk ji seen waa kër Aïsa ci njabootu kan la bokk léegi mu ngi nekk gum njabootu Abubakar ndax ci kër Abubakar la nekk jébbal guñ kon yonent bi sallallahu lu mën a xew ñaari famille yooyu na ñaari borom kër yi ànde gàddaay noonu la ñaari famille yi ànde gàddaay ñëw Madina waxoon nañu ci dar sa bi weesu ne ci dugg ci atum ñaareel ma ci gàddaay gi gannaaw xare Badar ca lañ ko jébbal yoon bi sallallahu alayhi mu ne man daal damaa nekk samay moroomi xare di fo ba yàgg rek ñu woo ma ma ñëw ñu waajal ma jigéen ñu waajal ma préparé ma jébal si ma yonent bi sallallahu alayhi wa nii la sama si dem xaw ma ci dara waaye Aïcha wane foofu mbir mu am solo mooy bi mu nekkee ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa xool na ko bëtu soxna waaye xoolaale na ko bëtu ngone nee na dama amoon sama ay doom ay ni ñuy wax ay séet yu may fooye yu xam ne maa ko defar di ci fo yonent bi sallallahu alayhi dafa doon xool ci biir foowukaay yooyu maa ngi ci def fan fas wu xam ne dafa am ay laaf moo xool mu ne waaw lii lan la ma ne ko lii de samay doom lañu mu ne waaw lii ci digg bi nag ma ko lii fas la man ma ah fas wu am laaf ma ne ko ay ah, yonent bi xanaa déggoon na dafa amoon fas yu am laaf yonent bi dafa ree ba ay déggeñam feej mu ne samay morom dañu daan ñëw sama néeg di foog man ci séet yooyu bu ñuy foowandoor ak man ak di woyantu bu yonent bi sallallahu alayhi wa ne tëll dugg si ñu rocce ko ndànk làqu daal di génn yonent bi sallallahu alayhi wa moom it bi mu xamee lool léeg-léeg mu wooxal ma mu yebalal ma sama moroom yooyu nañ ñëw foseeg man su leen gisut moom dana génn sax bu leen gisee mu leen dem leen ngeen foo ak seen morom ñu ñëw di foseeg man loolaa tax suñu Aïsa radiyallahu anhu teg ca euh, baat ndénkaane bu am solo mu ne da leen di xool gëddu xale bu jigéen ndax dafa bindoo bëgg fo kon da leen ko dayool ci dayitam da leen ko maanaam da leen ko nattale fi mu toll da leen ko nattale fi mu toll lii danaa ci joxe benn tarifa benn euh, mbir mu xew ci saalum mu reelu waaye muy dëgg góor gu xam ne jegewoon na juróom-ñaar fukki at waaye ñu may ko seet bu xam ne ci ay fukki at ak ñeent fukki at ak juróom du ko sori am na ñu réeroo xale bi daw ñëw ci ay mbokkam borom kër gi ñëw di ko topp si yaayi xale bu jigéen bi dafa xawoon a dese tuuti ci wàllu xel waaye mu wax kàddu dëgg mu ne ah lii ku ko ma a gis guneeg tuuti kay ku ko ne maam yaa ko tooñ guneeg tuuti ku ko ne maam yaa ko tooñ luy loolu maanaam goneeg tuuti gii ku bëgg mu yem ak maam xel yem maam nu ñuy jàppee mbir yem ak maam ful kon yaa ko tooñ loolu la bëgg wax goneeg tuuti ku ko ne maam yaa ko tooñ maanaam borom kër gi yóotu juróom-ñaar fukki ndax du maam léegi kii toll ci fukki at ak ñeent fukki ak juróom du gone gu tuuti ku bëgg nag moom muy régler ay mbiram ni ko maam moomu di régler ndax dana sotti looloo tax Aïsa radiallahu anha doon wax ne na ngeen daytal xale yu jigéen yi ci seenub dayo ndax dañoo bindoo bëgg fo yonent bi sallallahu alayhi wa de daytaloon na loola nangu woon na ko dayo booba taxoon na mu ko daan seetaan ci am poam mu ko daan wutal sax ay moromam yu ñëw fole fole ko ak moom xam nga ne ba waa xabasa ñëwee ca jàkka ja di def lu xam ne bu ñu koy wax ca làkku njëkk wa dañu naan dañu doon fo ak seeni e, xeej waaye buñ ko doon wax ci suñu làkku jamono dañu naan dañu doon def démonstration maanaam ni ñu doon manifester seen arme yi pour wane seenu njàmbaar ci xeej loolu démonstration wala défilé la gën a niru Aïsa nee na ba loola amee yonent bi sallallahu alayhi dafa ne Aïsa ndax bugguloo seetaan mu ne aha kañ mu ne e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma yiir ma ci malaanam may seetaan seetaan seetaan ba yàgg ma ne ma doyal nga ma ne ko bul yàkkamti waaye bàyyi ma seetaan dema dema dem ba yàgg mu dellu ne doyal nga ma ne ko bul yàkkamti waaye bàyyil ma seetaan ba muy ñetti yoon gannaaw bu mu doyalee mu sog ko bàyyi mu dem si biir kër gi mbokk yi nit ni ko yàlla bindee boo ko rombalee nite googa wala dayoo boobu mu toll rek yaa ngi koy lor yonent bi sallallahu alayhi wa dafa xamoon loolu ci biir këram waaye sa moomu dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund bu yéeme boobu bu lewet boobu bu fees cofeel boobu bu fees leer googu moo seytaane du seetaan te du fa dugal loxoom ci xaswatu bani muraysa muy wala xaswatu muraysa comme ni ñu ko waxee muy xare bu xam ne yonent bi sallallahu alayhi sallam dem na fa am na fitna bu ca juddoo bu xam ne histoire lislaam du ko fàtte ba mukk te ñu koy tuddee xadisul ifk waxtaanu fen wa Aïcha bi mu koy nettali dafa ne yonent bi sallallahu alayhi dafa baaxoo woon buy tukki day bantale diggante ay soxnaam maanaa day def tirage au ku bantam génn mu ànd ak kooka tukki mbokk yi ndax waxuma leen won ne mbëggeelu yonent bi du mbëggeelu nabeer bu doon loolu kay buy tukki day tànn rek daal di dem waaye bu tukki jotee ñépp a yem ku bantam génn rek kooka lay demal mu ne ci xasootu mu roy biñ bantalee sama bant génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak man ñu dem ba yonent bi pare ci xareem di ñibbisi bii ñibbisi ñëw nañ ba ci yoon ñu campé ci guddi noppalu bi ñu noppaloo ba war a départ yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle nañu yéebaane pour na armée bi départ léegi ñu ñibbi mu ne foofa jog naa ma dem dugg ci nga ji bi faj sama aajo doomu aadama ñëwaat waaye bi ma ñëwaatee fàttaleku naa ne caq bu xam ne sama mag Usaama ci Asma moo ma ko abaloon caq ba ndeke dagg na ma wàññeekuwaat dem di ko seet fa ma wàññeeku di ko seet suñu tegi gëlëm yi ñu doon tukkee xaw dëj la doon am xaw daj mooy lu mel na as néeg suñu def mu tiim teg tegu gëlëm gi nga xam ne ay bant koy séq ndaw si nekk ci biir xaw daj boobu mu mel na ab néeg kenn du ko gis te itam Aysa bi muy wax mu ne booba fekk na yàlla wàcce aaya bi digle xijaab kiiraayu jigéen ñi ci góor ñi mu ne gaa ñi doon jël teg gi di ko teg ci gëlëm gi ak xawdaj gi ñëw nañu yëkkati teg ca gëlëm nga takk ba mu dëgër amuñu sikki sàkka ne maa nga ca biir mu ne ndax booba jigéen ñi dañoo woyofoon seen amuñ woon yaram noonu ndax seen lekk-lekk yemaay la woon kon woyofaay benn waaye ñaareel ba itam xam ngeen ne ay ponkal buñ bokkee yëkkatee ndoor kenn ku nekk dafay jàpp ne yëkkati ñeneen ñi moo woyofal ti nam ko waxee xam nañu ne du ñaar rek ndax dafa ne fa jaa a raxt raxt raxt ci arab day dalee ci ñett ti yeggut ci fukk mu ne ñooña mbooloo soosu ñoo ñëw yëkkatee ndoor xaw day gi teg ko ci gëlëm gi takk dal di dàq gëlëm gi départ mu ne gannaaw gi gis naa caq ba waaye ñibbisi naa dellu si naa fi ma camp fi ñu campé woon fekk ma fa dara dégguma kuy woote dégguma kuy wuyu ma dal di jubal ca palaas ba ma nekkoon aw ma weerante ne danañ ma nemmeeku ci yoon wi su ko defee ñu dëppaat jël si ma kon naa toog fañ ma waxoon mu ne fa ma nekk rek samay bët daal dama gañe ma nelaw waaye am na kenn ci saxaaba yi muy kan ah Safwaan ibnu Muattal nu ibnu Muattal dafa desoon gannaaw ci arme bi dafa am ñu xam ne dañu doon wut yow toujours nañu naan dañoo des gannaaw bu ñëpp demee ndax luñ fi fàtte ma man koo foraale yëtaale leen moom ñëw na ci leerug suba gi lay yegsi mu ne bi mu yegsee gis na ma fekk na maa ngi nelaw muureeku naa te xamoon na ma lu jiitu ñuy digle xijaab ba ma gisee rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ga mu wax moo ma yee ma dal di gaaw muuraat sama kanam mbokk yi xadi eh, xew-xew bi nekk na cëslaayul xëccoo ci ndax kanamu eh, muuraayu jigéen kanam ga daf ca war a bokk walla du ca bokk am na yeneen yi ñuy tegtaloo ci ne du ca bokk waaye ñay tegtaloo ne dafa war a muur kanam gi xadis bi dimbale na leen ndax Aïsa dafa ne xamoon na ma lu jiitu ñuy digle xijaab benn ñaareel ba mu ne mu fekk ma may nelaw fekk mu réeku naa ba ma gisee mu xam mi ma ndax xamoon na ma lu jiitu xijaab inna lillahi wa inna ilahi rajiuna jam wax moo ma yee ma muuraat sama kanam ah mu ngoog ñoo ko déggandoor de waaye yellante woon ñun ñu dem ba amatuñ problème bu dul mur kawa mur kanam wallaay konoon ñu foog ni ñu ngi bokk ci boroom jigéeni aljana yi fii nag dama fi taxawaale ma ne nañu teeylu nañuy jéemaale lañu ñu mën a am di yokk ndànk-ndànk buñ yegg ca xëccoo ba te li ñëpp dëggoo mën a mën a guñ koy am mu nekkal ñu fitna ma ne nañ jéemaale ci liñ mën a am te boroom xam-xam yëpp dëppoo ci te mooy muur lépp ba mu des kanam kanam gan ak buñ ko amee jël waaye buñ ko amagut buñ yootu ji la ñuy weerante bam xaññu li kenn weerante wut lu mën a xew nee bi ma gisee benn baat waxut ko déggaluma ko benn baat budul kàddu gi mu daldi di gooral ak gëlémam téye tànk yi ma daldi di yëg gëlém ma war gëlém gi moom mu may womat supporté wu ko de déedéet Aysa dafa war gëlëm gi moom mu téye ci buumu gëlëm gi di dox di womat nee na dabuñu armée bi lu dul ca bëccëg bi ñu tolloo ci digg bëccëg fa leen naaj wi poussé ci ñu war a yendal fa ñuy yendalee foofa la leen dabee si nee na ba ñu leen jubee nag foofa la ña alku ci sama mbir alko naam ndax njiitu naafiq yi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dafa wax genn kàddu gu ñaaw dafa seen rek mu ne seen jabar yonent baa nga de wallahi ndaw lu góor ak ndaw lu jigéen ñi fanaan ci àll ba heure bi géej naa ne muccut ci moom ndaw si hin muccut ci moom xam ngeen ne kàddu gi ñëpp xam ne nii wax kàddu gi nag commencé tas léegi Aysa mu ne biñ ñëf see man dama feebar weer tëdd ko feebar bi ma xawee tane ma ànd ak umu mustax euh, ñuy dem ca àll ba mu ne booba jigéen ñi seen dem wanag par guddi la doon doon ndax amuñu woon ay duus ci kër gi ñoo arab yu njëkkee ñoo yemoon nu ñuy defee doon nañu rus a génn itam kon guddi lañu doon génn ba guddi ñu ànd nag dem ca gott ba faj aajo doomu aadama bay ñib si mu fakkastalu ci sér bi mu woddoo mu ne taisa mustax mustax torox na texee àddina wala alku na mu ne ma ne ko yow yaa bon looy wax góor gu xam ne bokk na ci ñi fekkee xare badar moom ngay saaga mu ne ma hee yow mi xanaa yow la xew xanaa déggoo lu ñuy wax mu ne ma ne ko lu ñuy wax mu nettaleel ma wax ji mu ne ma dolleeku feebar boole feebar ba ma amoon ndaxte man kan yëguma woon dara waaye am na lu ma juraloon tuuti ñàkk ñaaw njort mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeewanti gim daan am ci man bu ma feebaree ñeewante googu gisuma ko ci sama feebar bi loolu moom juraloon na ma sikki sàkk ndax dafa daan ñëw rek taaw ci bunt bi na ñu fay ko mu ne kay fatiikum seen kooku nu mu def rek daal di wéy mu ne lii moom sikkaloon na ma waaye man yëguma dara bi ma ñëwee nag këdd doo lekku feebar boo lekk sama feebar yonent bi salaa sallam xëy ñëw salaamaaleykum kay fatiikum ma ne ko damaa bëgg nga may ma ndigal ma dem ci sama waajur yi sama yaay sama pap mu jox ma ndigal mu ne dara yóbbuwoon ma foofu lu dul ngir ngir ma leerlu ci ñoom li ñuy wax ndax dëgg la luñ wax am luñ wax la am déet ma dem bi ma demee ne waaw yaay nit ñi lu ñuy wax mu ne ma xii doom dalalal sa bopp dalalal sa bopp àndal ak sago jafe na lool jigéen ju rafet di sëy góor gu ko bëgg mu am ay wujj lu dul am na luñ ko sosal mu ne ma na ko ah yaay kon nit ñi wax nañ dara ma ne ah nit ñi wax nañ de waaye nag mu ñëw mu ne ma commencé jooy samay jooy metti lool waaye fa may jooy yàggut benn jigéen ci waa am Ansaar ñëw nuyoo fekk ma ci jooy yooyu mu jooyle ma waaye la jiitu loolu ñaari bëccëg ñaari guddi ak benn bëccëg nekk naa ko di jooy bañ yaakaar ne sama xol dana toj ndax ay jooy ndax yonent bi sallallahu alayhi wax wu ñëwut ci moom ne li nit ñi wax lii la te yonent bi xamul kumpa kooko tuumaal xam kumpa tooñ nga ko kon ne yonent bi xam na kumpa tooñ nga ko lii mu ngi xew ci këram diiru weer nit ñi mbacc mbaccee deram deru soxnaam manut cee wax leen ba fan la mujj mu commencé diisoo léegi woona Usaamatu ibnu Zayd ak Ali ibnu Abi Talib ngir diisoog ñoom ci ndax day far teqale ko Aïsa benn yoon wala déet ab yonent ñu wax ci jabaram lu ni mel te amul lu ko fom mu ne ba mu leen laajee Usaama wax na la mu xam Usaama nee na yonent bi sa soxna sa soxna la xamaluñ ko lenn luñ koy sikkee waxkat yi ñooy wax seen bon bon kon téyeel soxna si yàlla la ko séddee mu ne Aliyu ne ko ah man de li ma ci xam mooy jigéen ñi dul moom bari na yàlla xatalul la ci jigéen benn jigéen rek te nag jaam bu jigéen bi ci kër gi boo ko laajee moom dana la wax dëgg muy barira yonent bi sallallahu alayhi wasallam woo barira ne ko ndax gis nga lenn loo sikk ci Aïcha mu ne wallahi gisuma lenn lu ma sikk ci moom su ma amee dara lu ma koy ayibalee rombut ne xale bu tuuti la ci xale yu jigéen yi dana nekk ci am sungusam am sungufam di mooñ far fa nelaw ba xar yi wala ba yi ñëw lekk ko lii de laa am lu ma ko sikkale mu ne Zeynab bint Jahsh Zeynab yow loo xam ci Aïcha Zeynab soxna yonent bi sallallahu la Aïcha mu ne Zeynab moo doon sama waale dëggantaan ci soxna yonent bi yépp maanaam mooy ki nga xam ne moom laa toll woon ci concur moo doon sama concurrente daal moo sama concurrente ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom laa daan biiranteen mbagg mën a waaye ànd ak loolu Zeynab ragal yàllaam aar na ko mu ne ba ko yonent loo xam daf ko ne hee bi man damay aar sama nopp ak sama bët ni yàlla aaree sama nopp ak sama bët ma aaree ko sama làmmiñ ama ci lu may wax de xaama ci dara mu ne waaye Xamnatu bint Jaxs mi nga xam ne du dara lu dul e, rakku kii rakku wujji moom ngir wujjeele magam tax na mu bokkaale ca ña alko duggaale na ca mbamb ma ba bokk na ca ñañ tóor dóor juróom-ñett fukki yar ngir lan ngir di wujjeere magam te magam moom sàmm na làmmiñam ak ragal yàlla ba nangu caa wax gis ngeen yonent bi sallallahu jaaxle na léegi waaye nag tontu yi mu dégg ci ñii doy na ko mu ñëw ci jàkka ji mu ne ana kan moo may noppal nag kan moo may noppal ci waa waaju xam ne lor na ma ci sama njaboot waaju xam ne tuumaal na ci sama njaboot itam ku xam ne xamaluma ko lu dul yiw mosta dugg ci sama biir njaboot lu dul mu ngi ànd ak man kan moo may noppal ci kooku Saad ibnu Muaas daal di jog ne ko yonant bi wax ma wax ñu su fekkee ne kooku ngay tawat ci suñu mbokk ñun aws la ñu dagg baatam su fekkee nag suñu mbokk xasara ji la nga digal ñu ñu def sa ndigal foofa la Saad bnu Ubaada jot mi doon sangu xasraj Aïsa mu ne lu jiitu loola wallahi naka jekk góor gu baax la woon waaye nag sotu famiyam bi ñu tudd moo ko euh, yëngët mu daldi jog jóg ne ko fen nga doo ko rey manoo koo rey lim bokk ci xasraj moo tax ngay wax loolu waaye bu bokkoon ci awsu doo ko wax Usayd ibnu Xudayr daal di jóg ne Saad ibnu Ubaada fen nga danañ ko rey bu yonent bi di nga ñu rey ko dañ koy rey yow naafiq nga dangay ngay défendre naafiq yi coow la jool léegi diggante Awsa ak Xasraj ñaari gii di Madina yi coow li jool li coow li jool li bañ bëgg a xeexoo ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci minbar bi da leen calmer da leen noppiloo mënul leen a noppiloo di leen dalloo di leen dalloo ba nu mujj noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom it noppi daal di génn mbokk yi xool leen lii yëpp ñuy wax ne inna min juudika dunya wa darrataha wa inna min ilmika ilmi lawxi wal qalami te li xew biir këram xamum mbokk yi duñ xoolaat la ñuy wax mu doy na waar de yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne xam-xamam yegg na ci xam-xam ba ca lawxul maxfuus ak xale ba ga ñuy bindee te lii xew ci biir këram xamu ko diiru weer fitna yi yëpp mu dund ko ba ay saxaabam di bëgg a rayante wala daf koo xam di cinéma xaasa yonent bi jombe na loolu kon nañ ko jàppee ni mu ni mu waxee boppam jaamu yàlla la yonent bu yàlla la sallallahu alayhi wa waaye na nit ñi moo ci gën Aysa mu ne ma nelaw ma ma jooy ñaari guddi ak benn bëccëg fi ma toog ndaw soos ñëw toog ak man di jooy yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw nuyoo bi mu nuyoo toog sama baay ak sama yaay ñëw toog ñu ngi jooy rek yonent bi sallallahu alayhi wa sant yàlla gërëm ko ne Aïsa ah yow de am na li ñuy wax ci yow su fekkee set nga ci yàlla dana la setal su fekkee nag danga nga jota laal bàkkaar xamal na jaam bi bu defee bàkkaar mu tuub tuub gu dëggu dellu ci yàlla yàlla dana ko jéggal nangu tuubam bi yonent bi pare mu ne bàyyi tontu yonent bi sallallahu alayhi Seydina Abubakar mu ne wallahi man xaama lu ma koy tontu mu ne yaay tontal yonente bi sallallahu alayhi wa yaay ji ne wallahi xaama lu ma koy tontu xam ngeen booba Aysa ñaata at la am fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar mu ne man de géñ naa ci yàlla ni wax nañ leen ay wax ba wax jooja placé na ci seeni xol fu xam ne su ma leen noon dëgg la maa ko def da ngeen ma dëggal te fekk yàlla xam ne man ko set wecc la su ma leen ne defuma set naa itam te yàlla xam na ne ku set wecc la da ngeen ma dëggal bu ma nee def naa waaye man daal desuma dara lu lu ma mën a wax ak lu dul kàddu gi mu a booba li ma mokkal ci alquran li ma jàng ci alquran bareegut waaye ma fàttaleku waxu bàyyi yusuf gis ngeen fàttaleku sax turu yaqub mu ne ma fàttaleku bàyyi yusuf la mu waxoon fa sabrun jamil wallahu almustaan ala ma tasifun man daal danaa muñ muñ gu rafet te xam ne yàlla laay dimbale ko ci li ngeen di wax daal di ëlbatiku rek joxaat leen gannaaw tëdd mu ne ma am lu ma wóor ne yàlla dana ma setal waaye nag gëw ma woon ne yàlla daf may setalee wàccee alquran di ñuy jàng setal ma ci dama foowoon rek ne yàlla day géntuloo yonente bi sallallahu alayhi wasallam génn gént xamal ko sama set ndax sama mbir gënoon naa xeebu fi man may jaral yàlla muy wàccee alquran noonu laa yaakaaroon waaye fi ñu toog kenn ci ñun jogut la daan gaar yonent bi bu wax yu ñëwee ci moom ca la ko dal di gaar mu diis ci moom nga xam ne suba bis bu sedd guyi bu wax yu bi ñëwee dana ñaq bay siit ndax diisaayu wax yi mu ne bi wax yi bi jeexee lam njëkk def dafa ree mu ne ma Aïsa yàlla setal na la yàlla setal na la mu ne sama yaay ne ma jógal dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma ne ko dew ma fenn wallahi gërëmuma ku dul yàlla yàlla doo nga ma setal du ma dem fenn ci moom di ko nuyu yàlla mi ma setal moom laa gërëm mbokk yi lii lenn la ci xew-xew boobu waaye buñ ko bëggoon topp jataay bi dana gudd gudd ak yéen tax na dañuy taxaw fii insha allah bu ñu yàlla bàyyee ñu dund ba beneen aljuma lii di seede si nga xam ne ruwaatul xadiis ñoo ko seede ca nam gën a wéree ndax xam leen ne nettali bii euh, Muhammad ibnu Shihab az-Zuhri yi moom moo ko nettali gannaaw bi mu dajalee lu mat ñeent ci saxaaba yi ne ñoom ñëpp nettalil nañ ma nii waaye ñi ma nettalil ndax ci taabiina yi ñi ko nettalil moo ne ñoom ñëpp kenn ku nekk nettalil na ma waaye dama gis ne seen nettali dafa duggante gis naa ne ñenn ci ñoom ñoo gën a mokkal ñeneen ña ma ko lii am nettali la bi nga xam ne ki ko dund ak ña ko fekkee ñoo ko nettali waaye yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo ko setal moo wàccee alquran nettali mu gën a tee pire inna alladina jaau bil ifki osbatu minkum laa taxtabuhu charran lakum bal huwa xayrun lakum waaw ñi nga xam ne dañoo indi seen woowu ab kuréel lañu ci yéen bu leen yaakaar ne musiba la ci yéen seenug yiw la incha allah bu ñu yàlla mayee ñu dund ba benn aljuma dana ñu jéema feeñal yi woowu ak duruus yi ñu ci war a jàng duruus yi ñu ci war a jàng ndax xaqiqatan ay leçon yu baree bari moo ci nekk yaakaar naa ne lu ci gën a jegeñ lu xam ne buñ ko fàtte mooy ragal yàlla ni muy protéger borom fekk nañu ko ci Zaynabu bint Jahsh naka noonu njub nañu koy seedale borom bu ko takkoo fekkee nañ ci euh, ni ñu ko waxee sofaan mu attal ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seedelee njub lu jiitu lii ba tax mu sukkandiku ci lii baaxal ko ak yeneen incha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala warsagal ñu dundinu mu mel na dundinu ñooña warsagal ñu ñu tegee ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa na ci ñooña tegee woon yàlla subhanahu wa taala aar ñu ci fitna yu nëbb yu feeñ ba ñu dajeeg ñoom bokk ak ñoom ci ngëneelam nga wa sallallahu ne ndax dañuy tegtaloo ne jigéen moo war a labat déedéet tegtal bi du loolu tegtal bi mooy ne maanaam li ma bëgg a tegtaloo ci wax ji mooy labat ca kilifa ga lañ koy defee duhut ne foog duhut ne da naan dama contact ndaw si déggoo moom dem seeti waaye juram déedéet kilifa ya la ñuy waxat luñ fa amee